Sénégal boo xam ne nag yàlla dafa dimba dimbali maanaam muy yëngutu ci wàllum basket nekk Espagne maanaam di sol tamit maillot Espagne maanaam international espagnol la loolu la yàlla dogal waxee nag it fii la dëkk ndax kuñ ne astu nga sant ndur moom ak lu man a xew doomu réew mi nga xam naa ne waa jàmbaar ci loolu lañ sukkandiku ba fas ko yónnee dooloo njukkal moo tax balaa may ñëw ci euh, moor mi nga xam ne moo fi teewal waa jàmbaar production damay njëkk a jox astu mu nuyoo astu maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu wér. ba am nga affaire. waaw maa ngi sant bu baax alhamdulilah. naka Espagne. waaw Espagne ça tàng rek comme fii. ah dafa waaw. kon yàggoo ñibbi si xanaa. déedéet yàgguma ñibbi si. maa fi kañ dimanche passé laa ñëw. Mhm. kon ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi waaye tamit ma bàyyi la nga nuyoog mbokk espagnol yi. <laughs> waaw maa ngi leen di nuyu ñëw ko si nekk si turam si santam. Mhm. di leen wax que ni kontaan naa le fait que ngeen ngeen ñëw fii. Mhm. aussi tamit di sant waa Jambaar production le fait ñu mën a dem làmb bi. am na solo léegi nuyul espagnol yi parce que man làkk espagnol daf ma xaw a neex asu <laughs> hola buenas tardes a eh, Senegal hoy estoy aquí hablando lucha que me han marinado este combate si dafay mm. baax nga wax sa mbokk espagnol foofu neen dañ laa tudde làmb fii nag du mën a ñàkk asu tey yaa ngi Espagne di yëngutu liggéey ñu lay ñaanal yàlla carrière bi yàlla na ko yàlla gën a sàmma ah. mm. ba nga am ci lépp li nga ci bëgg yaa ngi dégg tey ñu jël làmb delloo la ko assu fii nga soxe ko yaakaar naa ci réew mi fii. Hmm. waa dëgg la fii nii laa soxe ko parce que maa ngi dem à l'âge de 14 ans. laa dem Espagne donc euh, sama enfance yëpp fii nii Sénégal laa defee. Hmm. donc bu ñu toogee ba waa làmb di ma delloo njukkal donc dama ciy sant yàlla rek. Hmm. te xam ne du du sama am am wala sama kàttan wala sama mën wala sama coobare. suñu borom xëy na moo ko doolee nii. ñoom ñu gis liggéey bi may euh, bi may liggéey. mu mu mu neex leen ba ñoom ñu jël drapeau jagleel ma ko donc damay sant yàlla rek. Mm-hmm. Mm. tey dina am na question boo xam ne sénégalais yu bëri dañ koy laaj. Mm. Astou sénégalaise la. mais Astou jël maillot Espagne. Ah. choisir ko euh, bàyyi bu Sénégal. yaa def loolu maanaam si sa bëgg-bëgg wala dirigeant réew mi ñoom ñoo la joxul opportunité boo solee maillot Sénégal. non aw ma woon opportunité bi parce que nekk naa fi ba ni ma demee mosuma am. kenn musuma woo si sélection yi ñuy def. Hmm. donc du coup ma nekk euh, Espagne ma def euh, trois championnats. Hmm. après gis ñoom ñu gis que nii wuñ ma tàggatee bu ëllëgee dinaa doon dara. Hmm. ñu laaj ma proposé mu ko. ma ne leen da ngeen di dem Sénégal waxee samay parent moom mu jaral leen ñu déplacé wu jóge Espagne ñëw ba fii. Euh, waxante ak ñoom. après ñu laaj ma ma ne leen d' accord naa peut être c' était mon destin. suñu boroom nii la ko nii la ko bëggee woon. mais moo amoon lu ma gënal mooy di jouer ci équipe nationale bi comme ñëpp parce que malgré jeu ma aussi mhm. maa ngi mel ni maa ngi si jouer parce que fierté la bu ma gisee euh, fii di di en plus aussi te dama leen di seetaan tout le temps mhm. ci bëri samay am di jàmm lañ dañuy jouer euh, entre championnat oui parce que am na ay sénégalais yu nekk championnat Espagne euh, kon daa mel ni loolu su ngeen ko yéegee ñu seetaan daa mel ni loolu kon moom du erreur mais erreur u dirigeant yi la li olof naan di nga xal di nga xeeb xal moor ba mu lakk sa dàgg loolu moom moo ñu daal ci moom ndax bu ñu sañoon nag gis ko mu évolué fii ndax mën na lu muy def macha allah tey làmb ndax yaa ngi nekk Espagne di dund sport bi di basket est-ce que di ngay faral di seetaan làmb. waaw damay seetaan làmb damay seetaan làmb maa ngi ko doon wax sama interview bi passé Bantamba euh, yéegi ne moo nekkoon sama. Euh, sama mbër parce que ñoo dëkkandoo woon Gueule Tapée en plus nga nekk xale. gis nga ni foofu noonu amoon na ay Moustapha Guèye ay ay Yaxya mhm. donc nga màggee si si euh, loolu. Mhm. donc dama doon leen suivre bu baax te damay seen làmb bu baax. Mhm. Yaxya lu la neexoon ci Yaxya. waaw moom euh, dal bu mu àndaloon ak yar bu mu doon wane tout le temps. te dafa amoon confiance si boppam que lu mu doon wax chaque jour mu ne moom xamul xamul daanu. daan la xam après dem ñibbi donc euh, euh, gëm-gëm boobu chaque jour boo xoolee sama interview dama koy wax sax mhm. parce que nit ki lépp ci loo mënti nekk même bu fekkee dangay jaay gerte sax wala da ngay jaay ndox sax il faut nga gëm sa bopp mhm. parce que am na ñoo xam ne duñ la euh, duñ la gëm te dañ lay fakatal naan la munoo yegg fii donc yow d'abord balaa nit ñi di la gëm yow yaay gëm sa bopp que ne yow lii nii mhm. mën mën nga ko def après suñu borom fekk la si jàppale Euh, tey waa jàmbar production ñoo def lii jàmbar production nag bu ñu ko waxee Mansour Ba moom na ci bopp bi ci njiital euh, teg moor si kanam muy coordonné lépp mm-hmm. ñuy defal tey remise de drapeau waa jàmbar production yooyu loo leen di wax di ay doomu Sénégal dëkk fii ci Parcelles Assainies waaw lu ma leen di wax mooy di leen sant di leen gërëm leen parce que euh, mënoon nañ dem xool ñeneen mais ñu xool sama jëmm ju xew bi jox ma ko donc damay sant yàlla rek alhamdulilah parce que mënoon nañ dem xool xool ñeneen ñàkkuñu ñu ko jox ma moom loolu laa ko mën a gisee ñàkkuñu ñu ko jox donc buñ ma CP ci ñooñu. ne man la ñuy man la ñuy sagal. Euh, vraiment ça me touche droit au cœur parce que neex na ma trop trop trop trop. parce que nga nekk dara di ci di ci liggéey nga gis nit. mi ngi reconnaître loolu ba jël drapeau bu day nii euh, sagalee ma ko damay sant yàlla bu baax. Mhm. tey entre euh, maanaam ñaari mbir yi bëris drapeau muy franc muy soq. muy ñaari ñoo xam ne ay xel lañ macha allah kii dëkk kii dëkk kii dëkk Parcelles li ma lay laaj foofu mooy est-ce que xam nga ñaari mbir yi ñoom ñaar. waa pour dire vrai xaw ma leen de. mais mhm. après bañ ma marraine combat bi. Mhm. laa commencé xool ci ñoom. léegi moo gis que nii ku ci nekk. Mhm. am na sama yooyu cousin yu nekk si ñoom ku ci nekk ñu ànd ak ñoom. donc man dañ ma dañ ma doon woo di ma wax Astou sa sa drapeau ñu ñoo ko bëgg a après ma laaj ko mu ne ma kii ne ma man maay ànd ak franc kii ne ma man ànd ak soog donc ma xam ne lii nii drapeau bu bu bu rëy la parce que ñëw na ba xas ba dugg bi ci biir fan ba gis que nii malgré sax bu nekk woon man samay samay cousin ñi ngi ànd ak ñoom donc damay sant yàlla rek di wax ko ñi ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin après mun a bañ a am zéro mhm. xam nga xam ne suñu borom ku mu may ndam rek nga xam ne noonu la ko dogalee du question que ni yow xamoo dara wala munoo dara nga dem rek dara defaruwaat suñu borom dina la may ndam incha allah beneen yoon te. seen communication yaa ngi koy dégg ñoom ñaar boo leen dee xool en tant qu'athlète. Mhm. noo leen nooy dégg communication ñaari mbër ak noo leen gisee ñoom ñaar ci seen parce que li may li may gis kese kii kii xeex lay woote kii bëri lay woote que ñoom ñëpp entraîné nañ te combat bi gis naa ne que euh, jaral na leen. parce que lii da leen di déclencher pour yóbbu leen donc si beneen niveau donc ku ku nekk dalay dalay jaral nga def lépp loo mun ak loo mënul. donc euh, en tant que en tant que sportif day nekk euh, takkusaan bu nar a métti si ñoom ñaar ñëpp. que ñoom ñaar ñëpp du ñu naan du ñu bëgg a bàyyi dara parce que da lay permettre nga dem ci beneen niveau mi ngi mel ni rek ngay jouer championnat. Mm-hmm. Euh, D2 bëgg dem D1. donc day dina métti trop mais comme ni ma waxee rek. que d' abord il faut nga disfrutar lu ko espagnol maanaam il faut nga am plaisir bi mm-hmm. après li ngay li ngay amee plaisir bi après noonu ngay ngay ñëwee après ba ba def li nga war a def rek après suñu borom kum ci may ndam rek mu xam ni noonu la ko dogalee. ban am boo tolloo ci bi pour a dem. waaw pour euh, d'abord looy njëkk a def comme lu ma waxee da ngay da ngay da ngay am plaisir bi di nga am stress pour dire rek dina avant mais man nag loolu lu may faral dal mooy avant ñuy siffler mais machine bu commencé rek après jeex na da donc da ngay concentré wu. Mhm. parce que xam ne affaire euh, affaire sport la c'est juste que benn une de temps la rek. nga concentré wu après nga def li nga war a def après c'est fini après bu la neexee nag mën nga mën nga fekk. Mor a ngi nii toog moo fi toogal waa jàmbaar production. boo hmm. amoon yóbbante booy yóbbante waa jàmbaar jaarale ko ci Mor mu dem ci Mansour ba ak ñoom ñu ne ci groupe bi fi teew loo leen di waxaat. waaw di leen wax que ñu def ni euh, initiative bu baax la parce que dañoo ñëwaat ci ci dëkk bi pour investir si pour jàppale xale yi ak ndaw ñi. Hmm. kon dama dafa mel ni que man ak man ak ñoom lu ñuy liggéey loolu la quoi. parce que nga nekk fenn après nga ñëwaat ne da jàppale ndaw yi loolu noonu lu baax la. que ñu gën a jàpp rek bañ a xaaj di xam ne fu ñu teg seen seen tànk noonu la. que tout début est difficile. lépp lay bëgg commencé day day metti mais que yal na leen suñu suñu borom may ay ndami ndami ndami yu bëri. te lii nii ñu ñu dama defal sant naa leen ci trop wax fa dëgg yàlla kontaan naa trop trop trop. ku gañe sa lu ko ciy fekk foofu laay jeexalee. <laughs> waaw loolu moom surprise lay nekk quoi. Ah. waaw bàyyi ma denc ko rek surprise lay nekk. waaw incha allah. am na solo léegi ma dem si moor Mor defe naa ne yow mën nga yaa fi teew laa jàmbaar li ma lay laaj mooy choix bi ci Astou Ndour lu ko waral d'abord. waaw Babacar ñu ngi lay nuyu waaw du nuyu presse bi fi teew yëpp mhm. waaw di santaat yàlla bu baax mhm. waaw di remercier bu baax tamit euh, sunu marraine di jour muy Astou Ndour mhm. en fait mënoon nañ ko proposer drapeau mu rejeté ko mais da ko nangu ak fierté ça veut dire tamit lu ñu rafetlu la ñun waa jàmbaar production te gis nañ yaa d'autres personnes yi nga xam ne pare woon nañ sax pour pare ne mbër yu ndaw yi pare na mbër yu ndaw yi mais dañ ne Astou Ndour lañ bëgg a delloo njukkal ci journée bi moo tax journée bi yëpp moom lañ ko jagleel te tamit mérité na ko te suñ defee choix am si moom maanaam dañuy nekk si monde sportif dellowaat ko si monde sportif. ça veut dire moom sport lay def ñu delloowaat lépp si sport bi quoi en général. mooy wane tamit fierté la. wax dëgg yàlla gis nañ tamit nu mu ko jëlee. gis nañ taxawaay bi mu si am. dañ koy remercier bu baax di wax àdduna noonu kese la. ñii dafa jot ñu leen di wane. sénégalais yi di xam ñoom ñooy ñan soo xoolee la muy def si social soo ko jëloon interview mu wax la ay projet am ak lim nar si réew mi ak camp de basket yi mu pare lu mu fas yéene samp Sénégal ça veut dire yooyu yëpp il est temps sénégalais yi xam ko xam vision si Sénégal ambition am te tamit si yii nii lañ ko mën a wanee ndax ku ne làmb xam ne milieu boo xam ne coow li bari na boo xam ne mun nga si jaarale sa communication boo bëgg loo bëgg nit ñi xam ko soo ko jaaralee si làmb mm-hmm. nit ñi dañ koy xam mm-hmm. wax dëgg yàlla dañ koy remercier bu baax mm-hmm. gis nañ tamit jàppale na ñaari mbëri ku si nekk jënd na la ay billets yooyu yëpp mënoon na ko si bañ a fekk mais pour def mooy social bi ñuy wax si moom rek waaw ah, dèjà dañ koy remercier ñun waa jàmbaar production yëpp di nuyu stafu jàmbaar production bi di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Mansour Ba ñoom Gora Bey assurance Papa Gueye maanaam ñii ñëpp ku nekk si jàmbaar group yëpp waaw du ñu bëri quoi parce que jàmbaar production xëy na man maay coordonné maa ëpp lu may wax maa ëpp lu may feeñ mais y a d'autres personnes yi nga xam ñu ngi sama ginnaaw mm. di nu dooleel si xel xalaat si lépp waaw wax dëgg yàlla ti yi de euh, de aujourd'hui lañ koy jaay à partir de 17 heures Mhm. képp koo xam ne ñëw na arène nationale point de vente am na fa di nga sa ticket dina disponible. waaw arène ba rek lañ jël à partir de 17 heures parce que tamit euh, tey war na def visite da suñ dernière visite des lieux. Mhm. war a def réglage yi si arène nationale. waaw ñu ngi fa daal tey si arène ba daanaka 2 heures du matin ak yooyu. mooy wan ne képp ku ñëw si arène tey soxla ticket di ko fa am à partir de 17 heures daal incha allah. Mhm. defe naa. da ngay tëj parce que mënut a ñàkk faaw nga tëj rek. Hmm? Hmm? waaw li may wax rek encore une fois euh, merci. Hmm. ñi ñi fi ñëw ñëpp. que maa ngi leen di sant di leen di leen gërëm. que ñu joxe rendez-vous. Euh, demee incha allah euh, ci kàttanu yàlla. ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin am na solo kon kooku mooy Astou Ndour gars yi kon dimanche lay doon bu ko kenn jaawale drapeau Astou Ndour Fransox nee na nag ko gagné la nga cay amee surprise lay doon du loolu la wax ah kon dañuy def remise de drapeau bi léegi Astou ajakaay muy nuyu presse bi yëpp ceer a ngi fi borom <laughs> lit Sénégal jili wasaare Fatma Dia Kewel Info